asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi seetaan seen télévision Argo TV ak seen mbokk seen xarit oustaz Alhaji Malick Ngom ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission verset du jour ak beneen verset tey mbokk yi yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax kutiba aleykum alqital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa antum la taalamuun yàlla neena ma dogal xex waye gënaluma lol nak ben parti la waye liñu yittel moy wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum lego leg yow doomu adama bi nga bañ dara ta fekk li nga bañ lolou mo gën ci yow wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum lego legi nga bëgg dara fekk lolou nga bëgg musiba la ci yow kon nak wa ufawidu amri ila allah nit daal boo bëggee noppalu jëlal si lépp jébbal yàlla du loo bëgg rek def ko du loo bañ rek ñàkk koy bañ a def ndax di nga bañ dara fekk li nga bañ moo gën ci yow di nga bëgg dara fekk li nga bëgg gënul ci yow loolu nag pour nga comprendre ko boo bëggee noppalu lépp loo bëgg a dugg tànn lool yàlla wa xayir tax tar waaw tànn lool yàlla fa kayfa ixtiyaaru naa wa inna maxabaatil umuuri taxiibu naka ngay tànne yow doomu aadama bi te xamuloo lu xew suba kon xamuloo lu xew suba nag boo dee dugg ci mbir ak mbir mu mën di doon wala nga bëgg dara wala nga bañ dara tànn lool yàlla ngir loolu bokk mu dëppoo ak li nga bëgg booy ñaan del ñaan li nga bëgg na nekk lu gën ci yow li nga bañ na nekk loo xam ni du gën ci yow waaye yàlla subhanahu wa nee na wa asa an takrahu shay'an wa huwa xayrul lakum léegoo léeg ngeen bañ dara te loolu ngeen bañ fekk lool moo gën ci yow moo tax jullit bi bu bëggee dugg ci dara ñu tànn loo ko ne ko defal lu ñuy tuddee istixaara yonent bi ne jullil ñaari ràkk premier ràkk nga jàng fatiha qul ya ayyuhal kafirun deuxième ràkk nga jàng fatiha qul huwallahu ahad nga ñaan ñaan ba daal di koy jébbal yàlla ne ko yàlla lii ma bëgg a dugg wala lii ma bëgg su fekkee lu gën ci man la yàlla nga ko def bu fekkee lu gënul ci man la yàlla nga ko remplacer ak lu gën ci man wa asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun assalaamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu